Wassalamu alaikum mbokku internautes du Diégo Parle Foot ah, maa ngi leen di nuyu di leen ziar ah, di leen wax ngeen di abonné di activer cloche de notification bi di aimer vidéo yi eh, di ko partager ndax eh, vidéo bu fi bàyyeekoo ngeen man si jot c'est très important. ah tey dañuy ñëw wax ci euh, suñu milieu de terrain bi euh, muy Nampalys Mendy Nampalys Mendy euh, actuellement moo commencé réaliser un très bon CAN ci équipe nationale di Sénégal gis nañ ko ci ñaari match yu Sénégal def ci diggante ñun ak Malawi ak diggante ñun ak Cap-Vert Nampalys Mendy def ay match yoo xamante ne macha allah. mu yi euh, li nga xamante ne mooy en euh, lien entre euh, le millier et les attaques ñu gis qualité technique bi mu bi mu dégagé ci milieu bi tey ci Nampalys Mendy la ñu ñëw wax parce que il faut ñu présenter ko ñenn ci Sénégalais yi xam ko xam ne que ne Nampalys Mendy du jour bu ndaw jour classe mondiale la. Euh, Nampalys Mendy nag euh, pour ñu ko xamul mu ngi juddu le 23 juin 1992 foofee ca France euh, franco sénégalais la ñëpp a ko xam on le sait que ni Sénégal topp na ko ba sonn avant mu fiy ñëw donte moom sax dafa préféré woon pour football fale ca équipe bu France wante Aliou Cissé mbujul mësul bàyyi di ko topp di ko topp ba ni mu ñëwee ci équipe nationale du Sénégal waaw foofee ci équipe nationale du France moom Nampalys Mendy jaar na fa ca petite catégorie yu bari ci U18 ba ci U19 u espoir ah, mais loolu imprécié wu euh, ba Aliou Cissé topp ko indi ci équipe nationale du Sénégal ci mois de mars 2021 mu rejoindre équipe nationale euh, du Sénégal ci éliminatoire yi waroon dox ci coup d'Afrique des Nations ci diggante ñun ak Congo ak Eswatini Tini mom nak eh, ñewna en même temps que Fodé Ballo-Touré et Abdou Diallo ñoo ñep ay binationaux lañ euh, Aliou Cissé fexé ba indi leen ci équipe nationale du Sénégal kon Cissé euh, il est en train de faire un travail exceptionnel euh, di convaincre binationaux yi gis nañ ko ci Kalidou Koulibaly gis nañ ko ci Diao Baldé Keita ah mais nak Nampalys Mendy dafa spécial parce que actuellement il est devenu un élément essentiel du dispositif d'Aliou Cissé parce que ci kan bi rek woné nako batay mom place mi di complète complété li nga xamantene moy milieu de terrain euh, bu Sénégal bi nga xamantene fekk na fi Idrissa Gana Gueye ay Cheikhou Kouyaté ah, mais teewu nek li nga xamantene moy leader actuellement parce que euh, première match am ci équipe nationale du Sénégal contre Congo Brazzaville mu def ben prestation bo xamantene de classe mondiale prestation bo xamantene il est exceptionnel malgré manque de temps de jeu bi nga xamantene ne que na de euh, clubam di Leicester teewu bu ñëwee équipe nationale du Sénégal woné bopam mo wane Jukkay genn Ndiaye Euh, wane que ne euh, li muy def bëgg na ko. Nampalys Mendy nag nekk milieu de terrain boo xamante ni euh, dafa am potentiel am li nga xamante ne mooy talent am qualité yu bari yoo xamante ni équipe nationale du Sénégal daf koo manqué woon ah am profil boo xamante ne mën nañu wax équipe nationale du Sénégal daf koo manqué woon moo tax beaucoup d'observateurs et tactique sain, euh, considéré comme un élément essentiel euh, dans le dispositif des Lions de la Tringue parce que euh, son ancienne technique sa qualité de passe et sa vision de jeu rek tax le compère indispensable de Idriss Gana n'en plus il a beaucoup de qualités de matchs yi mu qui Coupe d'Afrique des Nations certes il n'est là que depuis peu il n'a Pili, quasiment joué en club depuis un moment, mais en sélection depuis ses débuts, l'Emplacement s'est rapidement mis dans le bain, fait ses matchs avec le Sénégal et apporte des solutions dans le milieu de terrain, même si cela resterait à préférer. Mais euh, Nampalys Mendy euh, ñu bari ñu ko doon xaar ci CAN bi ah mais nag commencé na wane ci boppam euh, ci huitième de finale yi euh, match buy mujj joué gis nañ ko day harceler dafay pomper dafay faire le lien entre l'attaque et le milieu de terrain loolu nga xamante maintenir équipe nationale du Sénégal daf ko manqué en tout cas ñun bu ñu ko gisee ñuy muy joué ñun dañuy content parce que gis nañ potentiel bi mu am dañu content que ni équipe nationale du Sénégal am na loo xamante ñu bari amuñu ko euh, parce que euh, c'est un équipe boo xamante ne euh, bari na ay potentiel am na qualité kon li ñu ñaan rek mooy ren ji Coupe d'Afrique des Nations bi ñu jël ko indi ko fii ci Sénégal parce que ñu ngi koy xaar lu yàgg a yàgg kon gars yi fi leen jëm ak yéen dañuy wax ngeen abonné di activer cloche de notification bi di même vidéo yi di ko partager jaa ngeen